wasalaatu wasalaam ala rasulillah nee na mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na ñu ngi ñuy ñëpp jiital ci nuyoo bi suñu kilifa bu tedd gi Cheikh Mouhamadul Basir bi nga xam ne yàlla def na tey moo fi toogal Cheikh Ibrahima Faati borom Daaru Muxti di teg sunu nuyoo ci loxo mu nuyu njaboot gi yëpp ndax mënuñoo lim ñëpp doole ko fi ñu fi nekk dèjà waxuma laa nag kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp muy kilifa yu bare bare bare bare ñoom ñëpp di suñuy wëllëre di suñuy kilifa di suñuy sëriñ di suñuy bàyyi président nee na dafa am fii ci Daarul Mofti rawatina fii ci kër gii di kër Cheikh Mamadou Bachir biñ fi dajeeg léegi dañ jaa bari ñetti weer lay tolloon kon yàggul te du te du woon guleet kon xam na ni yoonu kër gi ak buntu kër gi miin nañ ko te bu loolu amee rek dafa fekk ni waa kër gi wan nu yaatu ak kanam bu leer kon ñi ngi di gërëm bu baax di leen sant bu baax bu nu miinee dëkk bii tamit di Daarul Muxti dafa fekk ni waa Daarul Muxti wan nu lu mel noonu te loolu lépp nag ginnaaw biñ ci gërëmee mboolem waa Daarul Muxti jëpp den ci gërëm sëñ Abdourahmane Mbacke mii moom sëñ Cheikh Khady moom maam Thierno Birahim nga xam ni moom la yàlla jaarale mbir mi ci sunu diggante ba mu doon sama digganteeg waa Daarul Muxti jëpp rawatina kilifa yi kon kàddu yi mën naa bañ a gudd kaddu yu siyaar la. kaddu ñëw màggal li ñu bokk la. kaddu ñëw màggal lii nu bokk di màggalu daarul mukti la. muy bisu Cheikh Ibrahima nga xam ni. ñëpp xam nañ ni. ni. dayoo Cheikh Ibrahima Faty. ndax. ndax. bu amul woon dayoo boobu. bu amul woon na Ahmadul Khadim. du toog ba war a génn du toog ba war a ci mission yi mu daa doxal saa borom. seet li wër adduna yëpp. seet li wër Sénégal yëpp. seet li wër Bawol yëpp. mu doy loo ko ci moom ba jël njaboot. mu doy loo loolee borom mu ci sa waajuru tedd wa jël njaboot yëpp teg ci ndax kenn du dénkaane njaboot. koo amul yaakaar ci moom. koo amul ay qualité yu jikko ci moom. rawatina nag nit ku yàlla. kon loolu rek doy na sëkk ci ak dënk ci borom daaru mukti sa waajur loolu rek doy na fu xam borom daaru mukti mooy kan te ku dugg ci dëkk bi di daaru mukti loolu feeñaat ci baax a baax moom day wax ni daaru mukti bokk na ci dëkk diine yi gën a dal yu gën a organisé bokk na ci dëkk yi nga xam ne boo ci duggee ba bëgg ciy génn lépp looy gis day dellu mandargal diine diine islam rawatina nag yoonu murid kon loolay tànk yi Cheikh Amadou Bachir ñu bokk koog ñëpp ñëw siyaasi la